waaye gis nga Diop lan la yem yow. Diop dër gi noonu. bul forcer ak soo songale na ko songale na ko daan na fuuf doole. la ilaha illallah. aca jërë ngeen jëf mbokki internet yi ginnaaw bi leen nuyoo ziar leen bu baax am mbégte si yéen saa su nekk di leen dalalaat jàmm bu baax si seen bi seen seen bi di suñu xalaat TV di leen wax ngeen gën di bu baax te aimé vidéo yi di commentaire di partage comme ni leen koy faral di waxalee ci wàllu làmb rek di la ko toppalee ci wàllu làmb tey nee maa ngi ñëw toog benn champion ñu koy Jaxaaw waaye Boy Jaxaaw nag dafay waajal bis nekk journée boo xam ne Amba Dia production moo ko tëgg doomu yëmbal bi champion bi ndaanaan bi moo tëgg journée boobu nekk journée bu neex waaye grand combat mi ngi dox ci digganteeg ak ki nga xam ne moom mooy Bousse 2 nekk combat yu neex waaye combat social bi mi ngi dox ci diggante tamit Bolo Ndobil bi wala dayante kan Ama bu Yoof nekk combat yu neex yoo xam ne taxawal na ko nekk journée bu neex Amba Dia nag ku ko xam-xam ni ko xam ne ndaanaan la waaye dafa taxawal combat bu neex combat combat jànq toog ma toog ak champion bi nga xam ne moom mooy Boy Jaxaa war a bëri ak partie 2 nekk drapeau bi nga xam ne mooy drapeau jaaykat yi waaw jaaykat yi nag boo leen mooy ñi nga xam ne ñoo nekk arène nationale di jaay boisson yeeg dékk yeeg añ yeeg lépp ñu tamit ñu ngi leen di ziar bu baax di leen bëggee bu baax a baax a baax di leen wax drapeau bi nag seen drapeau la doo ci tuuti tamit ma bàyyi mbër mu nuyoo mbër nuyu naa la ziar la auzubillah bismillah ana wala yàllaaw jërëjëfe borom Touba jërëjëfe borom Touba jaaraama maam Serafar maa ngi la nuyu bu baax a a baax du nuyu waa cité bi waa cité Evian bi ma nekk xam nga du nuyu waa àll ba ñaax du nuyu waa daara ji télé bu xonk tamit waa jaxaaw siin du nuyu waa mbaaw sama ma rek damay juum waaw maa ngi nuyu mafia bi yëpp waaw waaw du nuyu sama yaay ak sama papa dañuy sonn si man bilaay walaay làmb ji ba léegi ni nii noppaleekuñu quoi maa ngi leen nuyu bu baax a baax a baax a baax aca bi nga nuyoo nuyu say mbokk nuyu say am di jàmm bu baax a baax a baax bala maa sori kii rek damay mooy Boy Jaxaaw bi loolu moo ko indi. jaxaw benn booy la rek xam nga teel a bëgg làmb quoi gëstu tamit waaw waaw ñu dëkk nag jaxaw siin foofu boo xoolee xam ne dëkk làmb la waaw buur siin fa la soqeer ko fa nekkoon waaw sama maam sama turandoo di ànd doon ànd ak ñoom buur siin waaw loolu tamit ñu fierté tamit ma dem foofu benn ay jamono xam nga gis fa làmb rek bëre sam papa ne ma ah yow de war ngaa tuddee sa bopp booy jaxaaw xam a tur bi tamit law foofu. waaw paa moo ma jox tur boobu nag. waaw xam nga affaire di ne gars yi bi dem ba law tamit. waaw gars yi xel bu baax a baax a baax. làmb ji da nga ko doon wala ak làmb ji. xam nga doon waaw ndax Eumeu Sène sama mag la. yaay ñoo bokk ndey ak baay. waaw bu naan làmb waaw dama fekk ngemb ko si kër gi waaw moom tamit maa ngi koy nuyu sa ëgër bu amee combat da si sonn dafa may jox ay lu bëri barki Seydina Mohamed lay teg sama loxo bi waaw bolo bologee tamit jàpp mu ngi ciy jàpp baax a baax a baax waaw maa ngi woo tamit famille Samba Xeyar Ngom bi yëpp Waly Seck ay bokk lañ maa ngi koy woo Waly ñëwal jàpp si saraq ji jàmbaar laa man góor si biir góor yi laa waaw du dawal góor yàlla ñëwal jàpp ci bu baax a baax ñu dem jëli lu ñu moom waaw. actuellement yaa ngi ngi toll si ñaari waaw bi mooy sama neuvième combat. neuvième combat waaw. waaw deux défaites laa am. deux défaites am deux défaites waaw. am nga waaw gis ne ngay waajal bis sa diggante ak Pathé 2 nooy waajalee sa bis boobu. waaw comme yeneen bis bi rek ñun ndax suñu làmb heure bu ñu làmb dañuy liggéey waaw boo xoolee suñu voie bi nu mel ni nga xam ne dañoo liggéey ba daj coono. waaw wallaahi làmb moom dañ si dañ koy jox lu moom sa combat waaw na moom tamit na waaj la xam ne ni moom nekkul woon maag moom maag magam la woon. waaw mu am nu mu fa demee quoi xam nga mais làmb chaque jour gars ñi nga bëgg duñ la soxla quoi waaw dañuy xam champion nga moo tax duñ la jël waaw mais. yow da nga jàpp ni Fatick yaa ko boo xoolee ba si biir maa ngi moom bokkuñu duñu la duñu ay morom sax man sama yoon dama kaa xare quoi. mais làmb mën am bu des mais mën ñëw denc xale boo xam ndax xale yi léegi ñoom macha allah ñoo fi jëlee ñoo fi jëlee mag ñi de. waaw moo am na coow dëgg xam nga làmb léegi làmb coow la te moom am na coow gars yi ñu ngi coow di wax waaw fu na laay dégg gars booy di wax mais tamit dof bi la am waaw góor bu ñuul bi lay dajal maa ngi nii. yow daal da nga jàpp ne ngay ñëw jaar ci kawam jaar. su ma ko su ma ko jeex ndax maanaam bokkul quoi cinq cinq yi bokkul maa ngi moom duñ sax làmb. di Falaye Baldé la jógee de. waaw man surtout Samba Xeyane Ngom laa man foofu. fu mu wax Falaye xam xam ne ay champion ñoo fa nekk. ay champion yoo fa nekk foofu yàgg naa fa ñëw di contact foofu ndax ñoom ñëpp samay gaan lañ fa laa dëkkoon man Pikine daaru laa juddoo waaw bu màggee laa ñëw benn baraak yëmbal waa yëmbal bëgg ma lu ma xew la tam dañ ciy bàyyi seen lépp wala gisoo ma bëggee dal damay ñëw kër maire fii daa ñëw récupérer tuuti xam nga mais bis baa daa yeneen mel ndam kon xam ngeen kon combat bi ngay bëre du yomb. comme yow comme comme daa nga fay def di contact ak di di ñoom kon xam nga ni kon combat bi nga combat ñoom xam na la bu baax xam nañ la tamit fi lay xam nañ ma fu ma fi ñu may jaar ma man tam xam naa fu ma leen jaar waaw ndax waa Pikine moom ku xam-xam ne Jules Baldé moom sama sama lépp la. waaw moom dafa may taxaw tamit am sama combat damay ñaanal bu baax a baax a baax. waaw moom moom vainqueur la quoi. combat bi lan lañ ci mën a xaar ci côté ci côté ci xeex ba jàpp ne combat bi bu ñuy arbitre bi sifflé ndax ñeme ngaa dëggal sa bopp xeexal waaw moom moom kay damay ragal mu war moom làmb moom xam nga gars dañuy war dañuy wax li jëflee hmm. moom bu amee bu amee fit na samp jaag man taxaw benn benn ak man waaw. kon saa tamit ci fekk. boobu baax bu am na am na gëm-gëm boobu noonu taxaw ak man di samp ak man am top 5 de. xalaatoo xalaatoo boo sammi moom jaag mu dóor la ko daanu. man dama mun xeex am naa combat MMA sax. combat MMA. <laughs> est-ce que nekkul da ngay da ngay da ngay da ngay jéem sa a a dox ci maa de am na combat MMA am licence su Gambie hmm. am licence MMA boo pare yow ñu ñu fay ñu ñu fay ñu xeex rayante si diggi géew maa ngi yow diggi géew bu yow nañ ko soppi def ko MMA ndax xam naa kon daal combat bi daal pare nga daal pour xeex ci boo xoolee damaa wàññi ndax xeex da ngaa bëgg a daal waaw saa bu moytul top 5 la jëm de tiital naa nag tiital naa ko trop. li ngay na de. bilaay la ma kaa yooyu bi jàmbaar jàmbaar jàmbaari la. moom la la wax moom xam ne da ngay ñëw jaar seen rek moom boo xoolee ba ñu kanam yëpp daa deñ. moom moo soxla nee moo soxla day ñàkk nag. moo nekk ci yoon moo soxla. waaw yenn saa nga suñu borom xañ la de. Mm-hmm. waaw mais man damaa soxla suñu borom dafa dimbali si tural may ma ndam waaw daal lépp lu fay neex yaa koy def. lépp luy neex te doomu géwél laa nag bul fàtte ne lépp laa mun de. géwél ambiance dañuy ambiance dañoo mun chorégraphe xam nga mun bis mm. mun digg géew. waaw man sama làmb yëpp damay wane fulaak fayda wallaahi loolu la ma gars yi xamee quoi waaw. du côté mobilisation noo koy waajee. waaw instant combat bi li ci des bëreetul. waaw li ci des ay semaine kese la. waaw te booy ñu ngi si gars yi ñu si Ablaye Diop xaas maa ngi koy woo tike yaa ngi si moom moom moom da si jàpp bu baax a baax a baax ëmmal seen sama grand bi waaw suba incha allah day ñëw jël xaasu tike bi. waaw gars yëpp dañ waaw bo boole gi moom bu moytu sax ñu allah ñuy jëlaat. dañuy jëlaat waaw bu neexee si borom xam naa kon dina kontaan ci jour boobu. non ah dina bëgg. waaw ndax xam nga. promoteur yi moom kuy kuy ku mbër mi jël bolok rek lañ gën a sawar. waaw gis nga cité bi boo xoole si bi xoolal cité bi waaw ñëpp. ñoom borom doole macha allah te incha allah ñoom dañuy jàpp si combat baax a baax a baax waaw moo jógee dëkk may topp waaw dama ñaan yàlla nga ñëw si ëmbën presse bi rek nga xool waaw le bu neexee borom bi na gaa yëpp waaj ëmban presse jaxaw du yomb barki sëñ Saal ku bëgg a gis ngéwél rek fecc cosaan dëgg-dëgg ñëwal le premier mm. waaw ndax dof bee xawle dof bu ñuul bi. kon daal jàpp bi daal lépp yaa koy non da lépp rek dem nga dem sa waay sa ci bomb. billaay man maanaam xam nga nit maanaam instant yii nii làmb yu may ñàkk du làmb yi de seen dëgguma ko sax. billahi bu dee bëre bu dee bëre dafa fees sama bopp bi waaw bëre dafa fees sama bopp bi. non xeebu moo ko sax képp ku may bëreel kuy kontak ak ñoom général Malika. ah ay ñoom bulldozer ñu lay jàppale. ay ñoom buubaa xam nga ñoom ay vainqueur waaw ay job de ñoom yëpp champion yooyu yëpp maanaam fii maanaam fii dafa boo déggee yëmbal boo fu limee champion yi dafa bëri fii booy ndaw yëpp ay ndaanaan lañ xolo booy bi mujjee fël fii ñu ko tudd Poutine boobu ndaanaan la ñu ngi koy bàyyi bu baax a baax Ada moom moo war a bëri dimanche ak samedi na yàlla na ko yàlla may ndam ak fii sa euh, kii waay Aliou Fatfat bébé Fatfat waaw booy yëpp maanaam booy yëpp ay ndaanaan lañ. tamit seen journée seen journée tamit euh, kii tamit Bolo. Bolo waaw Bolo Bolo bu yëmbal mara tamit da ciy waaw Bolo ndaanaan la xam nga ñun tamit ñu ngi koy xel bu baax a baax. Pikine tamit ay ndaanaan ñoo fa de. ma wax la ko. benn waaw mais nekk tamit écurie Pikine la nekk. kon tey jii bu ñu waa Pikine duñ ko supporté de waaye ñu see ñoo koy waa Pikine man la ñu subar ndax falaa falaa dëkk. kon daal da nga jàpp ne yow Pikine yaa ko fay yaa kiis Pikine la jógee fa dëkk. fa la dëkk nii waaw mu ngi nii. kon moo tax moom mu juge foofu ñëw. moo tax mu jógee foof ñëw ba fii wër na yàlla Pikine la dëkk Pikine la jógee ñëw ba fii ndax combat bi. est-ce que ne rek. non moom Pikine laa defee lépp fa laa juddoo. waaw waa Pikine chaque combat moom seen combat seen waa koñ ñoom ñëpp dañuy ñëw fii yee wóor alxuraan karim xaarim ngom xaarim ngom rax Eumeu Sène mu ngi Pikine te combat am day ñëw fii waaw moom may defaral lépp dama jàppale xaarim ngom écritage nga la nekk waaw moom écrit fa lay bala la nekk te xëy na xaarim ngom deret moo moo ko indi ci man waaw moom tamit xam nga waaw maa ngi ñoom moom xam nga siiwul naxawaar man Jacob xam nga Jacob bu nga xam loolu yàgg na Jacob ñoo bokk ay histoire làmb tuuti ndax ba may ba may ñëw Pikine foofu di bëre ñuy dem sa feen tuuti sax ginnaaw raay xam nga paax feeraay foofu boo bëggee bëri da ngay dem pikin ngay jëm mu mu tudd sax biteel ngay dem dajale jaay ko xam nga ñëw bind si tournoi yi xam nga suñu borom suturaal la boobu Jacob moomu njëkk taxal ngemb xam boobu booy laa wër ah, billaahi Jacob la waaw mu man boobu booy laa barke Seydina mu taxal ma ngemb ma ñëw daan boobu lañ xamante xam nga boobu jamono jooju sax yàgg na waaw na na waaj. xam ne dof bi la la af kii koo am. waaw dof bu mag bi. na loo lépp loo dof moom moo la ko gën a dof. waaw na waaj rek barke Seydina Muhammad yow du la may dara bu doon sax damay feebar bay waaj a dee sax yow doo ma daan. incha allah yàlla may yàlla suturaar mais man dam si sa kaw. kon jàpp naa ne jour boobu Ama Dia moom dina kontaan ci dina kontaan ci côté mobilisation bi kontaan ci combat yi xeex beeg ci bëre beeg lépp. waaw dina kontaan si lépp ndax ñaari njool la moom njool la man njool la te man njool bi direeku la damay wàcc jàpp la daan la. waaw yow nga bëreeg man fu laak fayda ndax lu ma fekk ci suuf dama koy këf ba moytu top cinq nga jëm de waaw. Pathé sa waay da lay da lay jéem a teg xel de xam nga lool instant yii danaa la fi laay def nii laay def te bu jour ba mu ñëwee njuy la yow préparé lépp rek. mooy yow yow fatal fépp doo dégg ñu naan fatal ma fépp. Ah. waaw kon daal combat bi daal moom pare ngeen daal ci lépp. ci lépp sax pare nañ ci mystiquement bi tamit noo ko noo ko noo ko noo ko waajalee. waaw lamb ak mystique ñoo ànd. ñoo ngi waat si ay suñu si ay mbokk xam nga di taal ñun suñu entraînement la ñuy gën a naw tamit te lamb léegi xam nga yow boo amee doole rek yow mot après les motali lay doon quoi dañ naan mbër bu ndaw entraîneur boo neen nder taxaw samp dëgër. mbër bu yaakaar ay galaaj ay kii nu nu nu nu waaw gëm nañ ko trop mais ñun ñoo ngi ànd ak yàlla quoi waaw mais tamit am nañ ay mboq tamit waaw am ay mboq bu baax a baax a baax waaw mais entraînement bi ñu gën a focus waaw mais am nañ ay mboq yow wax laa la wax waaw waaw bu baax a baax. kon daal le le 6 novembre mu nekk journée Ama Dia production nee naa la combat yi neex la fa taxawal. grand combat mi ngi dox si dëggante fii sa réeru ak ak waaye moom mii di Boy Jaxaa war na faa dayanteeg ak ki nga xam ne mooy Pathé 2 nekk combat yoo xam ne combat yi neex a neex a neex la fa Amadia production dëgg la fa la tëgg foofu nag Amadia nag gëjoon na ci làmb ji waaye instant bi manqué na euh, mi ngi mi ngi marqué retouram bi nga xam ne xëy na retouram bi jàpp nañ ni combat combat yi ci yëpp yàlla na réussir rek jàmm ak salaam lépp li ñu xam xamee moom la si moom la si jublu woon rek suñu borom mottali yéen yëpp bu baax mbër ma bàyyi nga nga woo nga woo say mbokk ñu jàpp ci combat bu baax a baax a baax. waaw maa ngi woo sama waa staff sama waa staff boobu léegi xam nga ñu si quoi waaw maa ngi woo sama limee damay mu fësal maa ngi lay nuyu Samba xam nga Poko maa ngi koy nuyu baax Jéeri amoon na jaakara prothèse maa ngi nuyu sama booy yëpp booy boobu léegi xam nga ñoo ngi siy wàcc sama jarbaat bi maa koy nuyu Yankuba di nuyu Eli maa ngi koy nuyu bu baax a baax di ko ñaanal jàmm xam nga sama rakk ju baax la. mooy loolu noonu di nuyu ñëpp ceer tamit maa ngi koy nuyu ñoom Binta xam nga waaw ñoom xadi sama jabar ji maa ngi koy nuyu bu baax xadi ah waaw amal jàmm rek chaque jour quoi di nuyu waa Sangalkam waa Sangalkam waaw maa ngi nuyu bu baax a baax su ma limee rek damay juum waaw di nuyu sama per per njaga sama artiste sama père sama lépp di ko nuyu di ko ñaana jàmm di nuy Aada Aada Diouf maa ngi koy nuyu Yande xam nga ñoom Kumba tey moom damay lim samay famille ñoom Kumba Roqaya maa ngi koy nuyu Leena maa ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen ñaanal jàmm ah, ah kii maa ngi koy nuyu faatu Fatou Diouf Diouf a ñoxo baay waaw di nuyu Seexu suñu sërif yi Seexu ñaanal ñu si làmb ji soxla lañ ko trop wallaahi di nuyu jëwriñ jëwriñ Mor maa ngi koy nuyu tamit waa jaxaw waa Jaxaaw chaque jour maa leen di woo jàpp leen si combat bi xam nga du nuyu sama grand yoon mu nekk ba Europe wala xaalis bari la mu yónnee mooy pré combat bi xam nga ne ma làmb ci bu jege du nuyu suñu maire bi Vieux Diop maa ngi koy nuyu du nuyu waa cité Ivian bi cité Ivian bi yéen ñëpp maa ngi leen nuyu nuyu pour ngeen jàppale ma seen doom seen xarit seen mbër xam nga du nuyu tamit sama benn booy booy Ela maa ngi koy nuyu Marre ñun ñëpp suma ma limee damay juum ndax ñooñu ay vainqueur lañ maa ngi nuyu appliqué tamit di ko ñaanal ndam tamit xam nga. waaw am na combat waaw mu ëmma di ñaanal ndam bu rëy rëy rëy ndax ñun sax. ak yëmbal la. waaw ak yëmbal la waaw. waaw foofu loolu foofu mu code la foofu yaa nga xam dañ koy jëli waaye kenn du la wax yow du la wax appliqué kenn du la wax yaa moom lépp yaa mun yaa ëpp doole yaa gën a féete xale. waaw 100 pour mooy daw de. général bu Malika ay te gaynde gi yàlla na yàlla may ndam. borom lu trois yàlla na yàlla may ndam dimanche incha allah suñu borom suturaal ñu may ñu mu neexee borom bi. buubaa tamit bu benn baraak maa ngi koy ñaanal ndam samedi tamit. képp ku yeewoo fii rek waaw di lay di ñaan yàlla yàlla may la ndam rëy rëy rëy rëy bon boo Diop morom dëkk bi Diop le 22 décembre yàlla na yàlla may ndam yàlla la yàlla may ndam yàlla na yàlla may ndam jàmbaar ji Eumeu Sène waaw ñu ngi lay nuyu bu baax a baax dina xam nga ñu ngi ñëw indiwaat yeneen bolo yi nga jàpp si bu baax a baax a baax suñu xarit sama grand sama idole sama lépp waaw maa ngi woo ñëpp daal sama liméra damay ju làmb xam nga làmb dafa metti waaw billaahi xam nga làmb moom dafa met mais paade après moom dina moom du woote moom du woote du suus du paas du ma ci tàngal hmm. waaw du def dara lépp man la maa ngi woo ñëpp hmm. waaw di woo famille Samba Xaram yëpp ñu ñëw jàpp si xam nga waaw du nuyu euh, kii waay euh, abu Abou Sarr maa ngi koy nuyu di ko ñaana di di wuyu booy booy booy kii booy pël booy bi maa ngi koy nuyu bu baax a baax Omar booba léegi heure bu wàccee day téye bagage mi barki Seydina Muhammad ñëw ba fii tike yëpp mu jaay ko jàpp ci affaire yi booy taraag yi ñuy taf yëpp moom mooy ñëw gérer xam nga di ko ñaanal jaamu tamit di nuyu ñëpp su ma limee damay juum jaakaraa prothèse Papa Ndiaye luur démb jox na ma lu rëy tamit Papa Ndiaye maa ngi lay kontaane bu baax a baax a baax mais il ma taxaw fenn sëñ Abdoulaye xaas xaas blog yi yóbbu naa ko si mu ngi si yow dama bëgg nga jàpp si bu baax a baax na ñun amuñu lu dul suñu secteur képp ku taxaw suñu secteur rek ñun daf ñuy neex tamit waaye ndax ñun fii la ñuy reyante surtout ma àll baay ñaax waa marin tamit ñëw leen taxaw seen mbër waaw waa ñaax ñëw leen docteur Guèye Guèye Ndioro Guèye ñoo ngi lay woote tamit si làmb ji yow kenn du la wax jàpp si bu baax a baax a baax yaa suñu docteur yaa ñu war a faj de ñu wër carrément si làmb ji waaw ñoo ngi kontaan bu baax a baax a baax a baax bilaahi eh dof baa ngi nii de mbër bu ñuul bi kooku bi waaw doy daw rek waaw surtout sama xaan baa ngi nii lom fort l'homme plus foor maa ngi nii waajal xam ne gaynde gi nga am gaynde gu ñuul gi waaw na waajal lépp moom moom lu ma koy yóbbante sax gu maa ngi koy wax na waaj samp dëgër rek ma ma fekk foofu. dafay raka foofu waaw. bu bis ba lépp lu koy neex. jaxaw moo koy def. incha allah rabbi loolu laa jàpp. bu dee bëre. mooy bëre bu dee xeex mooy xeex. ñoo ko mën aller retour. billaahi duñu moroomam sax. non du waxu supporter de dañoo xam suñu mbër. ku am sa mbër nag na nga ko téye ñun dañoo xam suñu bër xam nañ sañ-sañ bu mu am xam nañ sañ-sañ bu nekk si moom. bu jàppee bis ba dañ gis luñ mës gis maa la wax. waaw baax na incha allah waaw bu bis baa noonu lay demee nag incha allah rabbi yàlla nañu yàlla may talak fekkee rek. ci kaw. kenn moom mën ngaa jàpp no baax na ba bis ba rek incha allah wax ji day yàq ba bis ba incha allah pare nañ si lépp pare nañ si lépp si lépp incha allah waaw waaw waaw baax waaw baax na ba bis ba Pikine laa jógee ñëw fi pour jàppale ko ndax sama nijaay bu baax la billaay nekk nit ku baax waaw lu baax rek lañ koy seedal waaw mais ba bis ba incha allah dañ gis leneen yàggatul yàggatul le six yàggatul ñëw na ba pare ba bis ba waaye loo mën a loo a waaw di ñaanal di ñaanal suñu suñu mbër bi Boy Diakhao yàlla na ko yàlla mayndam ndam yàlla na ko man moom xam nga rek tey so a ah, nga man du ma mbër quoi man du ma mbër man moom si danse bi laa doon nekk maa ngi woon affaire de danse mais léegi bàyyi naa bàyyi fecc quoi waaw ay vidéo yu bari sax boo duggee si YouTube nii am naa ci ay vidéo bokk naa ci ay tournage série yoo xamante ne nii gars yi gars yi ràññee nañ ko quoi waaw mais xam nga tey ji dañoo dañoo da ngay wax ci làmb quoi da wax ci làmb tey ji waaw booy booy wax ci làmb boo amee mbër boo dëkkee mbër mbër moom loo koy conseil boo amee combat bu desee une semaine bul bul sax tëdd di nelaw ba ay onze heures am jugal quatre heures du matin wala cinq heures du matin nga jug dem nekk ci entraînement parce que entraînement du doy en plus sa adversaire doo ko xeeb quoi ki ngay bëreel doo ko xeeb waaw di bëggee nag sama gars yi di bëggee di bëggee waale ñoom général bu Malika di bëggee di di bëggee ñoom Youssou Ndour di di bëggee waale ñoom Eumeu Sène ay ñoom Balla ñoom Sa Thiès ñoom Tapha Tine Bombardier mbër yu mag yi maa ngi bëggee mbër yu mag yëpp waaw di di leen ziar di bëggee sama Siteu Siteu borom jaamagal maa ngi lay ziar maa ngi bu baax a baax a am na combat bu rëy moom kan la sax moom Modou Lo waaw daal làmb daal moom lenn la maanaam ku mën sa morom duma waaw tey jii nii soo entraîné boo amee adversaire boo leen bëree da nga koy daan waaw tey jii mënoo toog nag di di di di di di di nelaw ba 11h ki nga war a bëri di yow 4 heures du matin ëpp la entraînement tey jii bu la jàppee da lay da lay fooy xale bu ndaw nga ñëw après di di bënn sa bët di jooy alors que yow yaa ko def. waaw di bëggee waale tiktokeur yi di bëggee waa ñi def si tiktok ñi nekk si tiktok yi waa di bëggee di bëggee waa Malika ah di bëggee ñëpp waa surtout tamit waa Medina. waaw di bëggee waa Médina quoi di bëggee waa waa Médina boo leen mënee ñëw tamit si combat bi ngeen jàpp si ngeen ñëw si combat bi waaw am na ñoo xamante ne yënguwuñu si si bëre tamit waaw yënguwuñu si bëre mais tey jii tamit mun nga ñëw waa soutenir sa sa sa sa sa sa mbër quoi tey jii moom lu ma koy lu ma koy wax rek mu gën a yokk entraînement yi ah, affaire yi moom du du affaire de mara tey di nga am combat di dem si sëriñ bu nekk mais entraînement la du du affaire de mara bu quoi affaire de sëriñ mais. waaw du affaire de bu mais tey ji entraînement la waaw di béggee tamit Youssou Ndour bu baax maa ngi maa ngi ziar Youssou Ndour di ko béggee parce que xam na booy jaxaaw bu baax waaw ñoom xam na xam nañ booy jaxaaw quoi waaw noonu la demee maa ngi ziar waa koñ bi tamit waaw di leen béggee ñoom ñëpp am leen loo ci bëgg a yokkaat waa daara ji chaque jour dama leen chaque kii dama leen sonal xam nga booy bi ñuy répété foofu xam nga waaw fa la ñuy ñëw répété sama moment yëpp dañuy bàyyi lépp na ñëw di ma taxaw xam nga boo sama booy tëggkat yi chaque jour dañuy répété foofu dañuy yëngal koñ ba mais xam nga am na ñoo xam ne tamit ndeysaan da leen déranger xam nga maa ngi jégalu baax a baax di leen wan ne benn kii la quoi benn temps rek la ngeen muñal ñu rek incha allah waaw ñu ngi jégalu baax a baax a baax waaw samedi kii lay jeex lënd ba mar rek lay jeex incha allah ñu nekk si leneen waaw maa ngi woo ñëpp tamit di leen ne waaw sama yaay booy yi laa woo si làmb ji seen làmb la ngeen ñëw taxaw seen mbër ah. waaw maa ngi woo famille yëpp waaw e bu dëgër bi la de barki Seydina Mohamed képp ku am si man yaakaar rek bu ragal dara man maa ngi nii bu ñuul bi kooku bu soxor bi waaw bis baa su ma taxee jàggi rek ba ba dongale rek nga xam ne génne mara falaanoo ko waaw waaw ay ca mbër day daw rek waaw. kon baax na tey loolu la indiloon fii kon di leen wax gars yi ak beneen champion di leen seeti nag Pathé mu tontu adversaire am ndax comme yóbboon dina ko ay kaddu di leen ko dem seeti ci mu tontu adversaire am wax tamit li li nga xam ne moom la nar. ci bis ba le novembre 2024 nekk journée Ama euh, euh, euh, nekk combat boo production moo ko a am nag mercredi le 6 novembre 2024 fee ci arène nationale neex yoo xam ne taxawal na ko combat social tamit di dox ci diggante Euh, Bolo ak ki nga xam mooy Ama bu bu Yoff nekk combat yi daal yoo xam ne macha allah Ama Dia production indi na ko di ko ñaanal bisam bi rek yàlla na réussir ak jàmm ak salaam ndax la suñu tons la suñu lépp la ndax yàgg nañ kaa topp bu ñuy di ko topp ci mbapat ak ñoom seen kon tey bu jugee tamit di taxawal combat ñu war nañ cee mën a jàpp bu baax a baax a baax bu dul dara rek ci dëkkandoo bi ñu dëkkandoo ñi ko ñaanal bu baax bisam bi yàlla na réussir di nuyu di ñoom maar ak équipe bi nga xam ñoom lay àndal di liggéey ci arène nationale bi yëpp di ko ñaanal rek yàlla yàlla dafa te loolu la indiloon tey fii ci fii ci fii ci yëmbal ah benn baraak ñëw seet ñëw seet si woon daraan bi di ñaanal gars yi nga xam ne yéen nga xam yéen ñi nga xam ne yéen a ngi suivre seen bi di leen wax ngeen gën di abonné bu baax di aimé di vidéo yi di commentaire di partager bu baax. gars yi ñu leen di fi jërë ngeen jëf.